asalaamaaleykum mbokk yi di leen gërëm gërëmaat di leen sant si li ngeen di déglu seen podcast yeewu tey dañoo ñëw pour waxtaanee liggéey yi nga xam ne nit mën na ko def si monde blockchain monde bitcoin monde crypto monnaie yi donc ñu bëri dañuy dégg domaine bii nii daf leen xaw a sori wala lañ koy xaw a ragal donc duñ jël temps dem xool réellement de quoi est-ce qu'il en ñi ñuy def mooy dañuy bàyyi mu sedd waaye ku nekk mën na see lekk xaalisam. que ngeen nekk. koo xam ne dafa technique maanaam développeur ingénieur sécurité euh, architecte cryptographe et cetera wala ngeen nekk koo xam ni code dégg rek la si xam ku nekk war nga see mën a am sa propre liggéey donc loolu la ñuy ñëw di waxtaanee ak yéen tey seen épisode tey bii nii. léegi dañuy njëkk a commencé métier yi ñu wooyee métier technique après ñu xool métier fonctionnel yi maanaam ñi nga xam ni euh, xarañu si code. donc si métier technique yi premier bi mooy lu ñu woowee développeur blockchain soo leen déggee développeur blockchain nag mën na doon lu bëri parce que mën na nekk lu ñuy woowee lépp luy tabax benn blockchain de A à Z tabax ay protocole te pour loolu da ngeen soxla xam programmation ak ay langage comme C++ nga xam ne moom lañ defaree blockchain wala protocole bitcoin ay langage comme Python Java JavaScript Rust Go la plupart du temps donc ay langage euh, orienté objet donc loolu mooy première affaire bi nga xam ni seen xel si la war a dem soo leen déggee développeur blockchain noonu nit la boo xam ni dafay ñëw via langage de programmation yii nii mu juste coder un ensemble de règles qui vont faire su ñu amee ay transaction wala ay interaction la dugal ci ay blocs euh, chiffrer leen et cetera bon tout le process qui est lié on va dire entre blockchain bi mais aussi nekk développeur blockchain ça veut dire savoir utiliser mais aussi di mën a modifier wala di mën a améliorer blockchain yi nga xam ne existe nañ ba pare benn développeur buy dem di xool code source bitcoin di si apporter ay modification di ko améliorer di def ay pi ay PRM ay ay pull request am kooku c'est un développeur blockchain koo xam ne tamit il fait la même chose si Ethereum c'est aussi un développeur blockchain développeur blockchain mën nga def lii te benn métier la boo xam ne instant bii nii dañ koy wër bu baax. ensuite métier bi ci topp mooy architecture réseau xam nañ ni blockchain yi bon notamment bitcoin benn réseau peer to peer la. léegi imaginons ngeen nekk ci benn projet gars yi soxla benn tabax benn blockchain de A à Z il faut am ñenn ñoo xam ni ñoom ñooy tabax réseau boobu noonu réseau bi nga xam ni ci la ñuy am nœud na nan la nœud di interagir entre ñoom. di nga am ay nœud yoo xam ne dinañ public am ay nœud yoo xam ne ce sera privé dañ leen di nëbb di nga am ay ñuy woowee ay super administrateur pour yenn blockchain yi nga xam ne nit yee leen contrôler ou sinon ce sont juste des nœuds qui vont s'auto-contrôler via li premier métier bi def muy développeur blockchain bi ak protocol yi. nekk tamit si domaine bii nii de architecture réseau ça sous-entend ngeen xam réseau internet mais aussi yeneen réseau yi réseau internet donc TCP/IP mais aussi yeneen réseau yi comme Tor. comme E2P su fekkee di ngeen da ngeen xaw a da ngeen xarañ réellement ci affaire bii nii mën ngeen gën a gëstu si yeneen type de réseau yi comme ay réseau satellite réseau mesh wala même euh, rajo yi onde rajo yi nga xam ni gaa yi dañ leen utiliser instant yi nii pour transmettre ay information donc architecture réseau bokk na tamit si métier yi nga xam nit mën na ko def si domaine blockchain métier bi si topp métier yu existe la ba pare comme ñaari ñu njëkk tudd mooy cryptographe bon am na ñu naan cryptographeur aussi dans tous les cas daal ñi nga xam ni maîtriser nañ cryptographie maanaam xam nañ algorithme yi nga xam ne moom la ñuy utiliser comme ay SHA comme ay euh, MD5 comme ay euh, MAC ak yeneen ak yeneen ñooñu blockchain am monde cryptomonnaie comme la noonu leen di cryptomonnaie vraiment seen monde la parce que dañ koy utiliser si couche bu nekk dañ koy utiliser pour authentifier nit yi pour créer wallet yi pour def transaction yi pour vérifier transaction yi pour construire bloc yi même pour transmettre information yi ci paquet yi franchement cryptographie fépp foo tourner ci blockchain da nga koy gis donc cryptographie ñoom mën nañ ñëw wut ci liggéey ci domaine blockchain bii nii am na aussi beneen domaine muy création wallet yi nga xam ni mooy calpe yi calpe yi nga xam ni dañoo xaw a sophistiqué euh, am na ñu woowee HD wallet wala am na yeneen naa naan multisig wallet yooyu tamit cryptographie ñoom mën nañ ko créer mën nañ créer aussi ay transactions sophistiquées euh, yi si ñu gën a xam moom la ñuy wooyee PSBT mooy partially signed bitcoin transaction donc yooyu tamit su fekkee yéen cryptographe ngeen mën ngeen si mën ngeen si gëstu am si liggéey tamit. troisième bi mooy gestion wu clé xam nañ nit ñu bëri dinañ ragal garder seen i clé privée seen i bopp donc dinañ jéem a trouver ay moyens soit ñu dénk ko kenn koo garder leen ko. soit ñu tabaxal leen ay solution yu ko sophistiquées yoo xam ne c'est encore plus de hash wala plus de cryptographie pour mën a sécuriser loolu donc cryptographie daal mën nañu wax ni ils vraiment un, un bel avenir seen kalam on di dire que métier bi stop mooy ingénieur en sécurité donc euh, blockchain que ce soit bitcoin wala yeneen yi ay système lañu te système bu nekk dafa vulnérable. système bu nekk tamit dafa may attaque yoo xam ni gars yi dañ leen koy def bés bu nekk quand il s'agit de bitcoin et comme tous les autres systèmes ngeen am donc attaques yi nga xam ni ay doos lañ wala ay lidos mais bitcoin tamit dafa vulnérable si yeneen type d' attaque comme ñuy woowee cyber attaque wala su fekkee dafa jëm si minage bi selfish mining spy mining ak yeneen ak yeneen donc euh, étant donné aussi que blockchainu bitcoin bi même si dafa décentraliser il n'en reste pas moins que données yi dafay nekk ci ordinateur benn nit wala benn Raspberry Pi wala benn serveur wala sur le cloud tout simplement. donc am nañ ay risques aussi infection ci ay malware ci ay spyware donc ingénieur en sécurité yi mën nañ ñëw di auditer mën na ñëw aussi di voilà di renforcer sécurité wu nœud yi renforcer sécurité wu euh, mineurs yi euh, voilà ak acteurs yëpp yi nga xam ni ñooy gérer yooyu mais aussi ingénieur en sécurité yi mën nañ spécialiser aussi audit de code. audit de code bu smart contract yi nga xam ni moom la gars di utiliser saa su ne loolu tamit c'est vraiment très très très intéressant comme métier donc sécurité bi aussi su fekkee yéen vous êtes des ingénieurs en sécurité et ngeen ko déjà ci système yi existant ñëw ci monde crypto-monnaie yi du difficile ci yéen. ensuite beneen métier bi am mooy développeur d'application à la différence de application yi nii nga xam ni moom la nit di. développé pour ñu fekk leen Play Store wala App Store yooyu c'est basé sur des serveurs centralisés alors que quand on parle de blockchain on parle d'un serveur décentralisé donc loolu mooy nekk différence bi loolu mooy nekk backend bi donc développeur d'application yooyu noonu mën nañoo concentrer wu si jéem a defar ay wallet jéem a defar lu ñu woowee ay dApps wala jéem a defar ay outi pour analyser blockchain yi. compétences yi c'est les mêmes que pour développer benn application classique on va dire donc dañ soxla ay développeur front ay développeur back aussi mooy ñëpp ñu ñu maîtriser framework JS yi bon voilà framework JS yi ñuy dégg saa su nekk e pour back bi c'est xam notion de full node yi que sa soit pour Bitcoin wala pour yeneen blockchain xam ñoom seen nœud yi comment ça fonctionne protocole yi comment ça fonctionne mais aussi su fekkee c'est lié à Bitcoin xam RPC yi donc RPC yi c'est assimilable à API API wala ay euh, wala ay appel de web service il suffit juste de documentation bi xam appel bu nekk ban fonction lay renvoyer wala yan données lay renvoyer et en fonction de ça construire benn soit benn appli web wala benn appli mobile donc là aussi c'est un gros gros marché pour développeurs soit freelance yi soit ñi nga xam ni dañoo bëgg a liggéey ci ay entreprise léegi gis nañ développeur blockchain lu muy signifier gis nañ ni architecte réseau yi am nañ seen place que cryptographie ñoom ce sont on va dire les éléments les plus importants que ingénieur en sécurité yi ñoom tamit am nañ seen place et que développeur aussi d'application yi ñoom ils ont un gros marché léegi soo leen boolee compétences yi nii yëpp mu constituer benn équipe gars yi mën nañoo créer benn broker wala benn exchange que ce soit benn donc li ñuy woowee CEX. centralized exchange wala lu ñuy woowee DEX decentralized exchange dañuy soxla métier yëpp ñu tudd ci kaw plus yeneen métier fonctionnel yoo xam ni si la ñuy ñëw nii donc métier technique yi lii la woon. léegi nag ñu ngi ñëw si métier fonctionnel yi premier métier fonctionnel bi nga xam ni ñun gis nañ ni instant yi am na solo trop te am na avenir mooy lu ñuy woowee analyste blockchain de la même manière que instant bi nii da ngeen am ay data analyst yoo xam ni ñoom dañuy basé wu sur ay outils yoo xam ni nit yi développé nañ ko ba pare wala si ay script yoo xam ni développeurs yi def nañ ko ba pare wala sur ay outils BI aussi da ngeen am analyste blockchain yoo xam ne dañuy utiliser ay outils déjà fait pour ñëw di analyser transaction yi di analyser interaction yi di analyser dépendance ak yeneen ak yeneen loolu lépp c'est pour lan pour def ay statistiques pour def ay regroupement pour enquêtes ak yeneen ak yeneen ak yeneen mais métier boobu noonu c'est un métier niir réellement deuxième bi mooy on va dire consultant blockchain maanaam da ngeen di nekk nit boo xam ne gëstu ngeen si yéen vous êtes gëstu ngeen xam ngeen théorie bi puisque xam ngeen théorie bi da ngeen di ànd ak benn technique yéen da di nekk consultant métier bi nga xam ne mooy def présentation yi moom mooy créer PowerPoint yi moom mooy wax ak nit yi moom mooy def recherche yi moom mooy bind article yi wala moom mooy def reporting yi et que bis boo leen amee ay questions sur le plan technique ngeen dem wër euh, développeur blockchain bi troisième métier bi mooy ay métiers yi nga xam ni euh, dañ leen di fekk en fait dans la vraie vie mooy chef de projet tout simplement gars yi ñu conseiller équipe dinañ soxla kenn koo xam ni xam na blockchain sans pour autant nekk ku technique wala ku xam vraiment détails yi si suuf suuf mais xam na blockchain te mën na gérer équipe mën na gérer projet. dina xam à peu près yan ñooy point yi nga xam ni moom la war a on va mën a appuyer pour mën a avancer loo projet bi beneen métier bi on va yeneen ñaari métiers yi si topp ce sont des métiers euh, très pour ñi nga xam ni réellement xamuñu dara ci côté technique bi premier bi mooy créateur de contenu mooy ñi nga xam ni dañuy gëstu lan mooy xew si monde crypto monnaie yi lan mooy xew si monde bitcoin ñu bind si article soit dañuy bind article pour seen propre blog. soit dañuy dem euh, bind article jaay ko benn entreprise boo xam ne dafa spécialisé wu si ay nouvelles autour de la blockchain ou bien autour des cryptomonnaies ah, ñeneen ñi moom la ñuy wooyee les évangélistes lan mooy évangéliste ici il ne s'agit pas de religion mais gars yi une chose adoption bi ñoom dañ koy bëgg di accélérer maanaam bëgguñu mu doon lu naturel da nga koy bëgg a accélérer te pour accélérer adoption bitcoin adoption yeneen cryptomonnaies yi qu'est-ce qu'il faut faire mais wër ay nit yoo xam ni gars yi dañ leen di fay ce c'est pas open source gars yi dañ leen di fay ñu dem ci ay entreprise ñu dem ci ay société ñuy dem ci yeneen ak yeneen ak yeneen ci ay gouvernement pour di leen expliquer lan moo tax ñoom ñu war a dugal seen bopp ci cryptomonnaies yi wala ci bitcoin wala ci yeneen wala ci technologie blockchain métier non fonctionnel yi am nañ analyste blockchain am nañ consultant blockchain am nañ chef de projet am nañ créateur de continue mooy ki nga xam ne dafay article wala ay vidéo mais am nañ tamit évangéliste donc yii yëpp nit ki mën na ko defal boppam en tant que freelance wala mu defal ko en tant que on va dire euh, gratuitement en tant que bénévole wala mu dem jaay compétence am benn entreprise en tant que salarié dans tous les cas daal ay opportunité yoo xam ni ki mën na ko saisir comme ni ngeen ko gisee métier yi bëri na vraiment opportunité yi bëri na nit ku nekk war nga see mën a profiter instant bii nii dañoo toll ci benn tournant boo xam ni tout la société est de muter dafay mel ni ngeen dellu quelques années en arrière bi internet di doog a ñëw métier yi ni ñu changé tey on parle de marketing digital loolu amul woon avant on parle de data analyse loolu amul woon avant xam on parle de plein de métiers genre consultant SEO loolu amul woon avant de la même manière que internet dafa ñëw changer affaire yi bii nii bu ñuy woowee web 3.0 dafa ñëw aussi changer beaucoup de paradigme donc c'est soit s'adapter soit continuer sur l'ancien modèle en tous les cas ñu li leen di conseil mooy ngeen anticiper war leen xaar ba affaire yi nekk fii euh, ñi ñi ko mën bëri yéen ngeen si doog a concentré wu profité leen instant bii ni nga xam ni wax bi bëri wu si que ñëwagul trop suñu dëkk yi ngeen gëstu si bu baax après ngeen jëm si lijjanti seen liggéey wala seen i propre euh, ngeen nekk si freelance tout simplement dans tous daal lii moo nekkoon métier yi nga xam ne nit mën na ko def si monde blockchain et crypto monnaie di leen gërëm di leen sant si li ngeen di déglu yeew